عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق Université Média di la ñaanal yàlla tawfiq ci mbooleem liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey ci xadara bi macha allah Euh, ñu ngi waajal katmiya gi euh, ñu koy amal fii ci Medina Baye euh, ñu nga fàttali solo katmiya ak lan mooy différence katmiya ak xatmiya waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ba ñu yàlla maye beneen at ñu mën a fekkee guddi gu barkeel gi nga xam ne mooy Layla katmiya ñu dippee ko maqaama bu màgg boobu nga xam ne yàlla may na ko suñ salim Mawlana Seydi Cheikh Ahmad Tijani radiallahu taala anhu différence bi nga xam ne moo nekk ci katmiya ak xatmiya du benn bu bëri dañ koy jaawale xatmiya maqaama la boo xam ne buur yàlla yu njëkke yi wolu yàlla yu mag yu bari doo xamoon nañ ko doon ko ñaan yàlla am na sax ñoo xam ne dem nañ ba foog ne ñoom ñooy borom maqaama bi am nañu wax qurbaaniyatul uzma boo demee ca Tirmisi indi na ci ay wax bu bëree bëri bëri bëri ibnu arabi al xaatimi mi nga xam ne mooy sultaanul muhibbina sultaanul arifina moom ci boppam ooteloon na ko boppam ba woy ci ay woy gannaaw ba mu génte xam ne dafa am miir bu taxaw boo xam ne miir bu rafet la mu des benn place boo xam ne birig moo ci war a nekk moom mu soppilu ko birig bi mottali ko ba mu xëyee nettali ko buur yàlla ay jamonoom ñoom ñëpp ñu firil ko ne ko yaay borom maqaama xeet miir mu daal di foog ne moom la ko wéy ci ay wéy sax fa toog aatif dikkal ko ne loolu nga yaakaar doon ko njortu ne yaay borom xat miir bi yow ñu dal di ko kashful Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani te faas muy euh, borom xatmiya euh, mu daldi gis tamit li nga xam ne yàlla nattoo ko Cheikh Ahmad ci ay nit yoo xam ne danañ inkaar ay mbiram ngir xaqaayaq yi nga xam ne dana koy tuuru ci ay xam-xam gannaaw bi nag ci la ko Cheikh Ahmad Tidiane toog ci maqaama xatmiya muy maqaama boo xam ne maqaama bu kawe la mu ngi ci jot ci weer bi nga xamante ne mooy weeru muharram boo demee ibnu baabal alawi mu ngi koy junj ci téeram ba mu leetul murit ne wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al azizi al muntaqa maqaamihi al maktuumi an kulli al wara siwa nabiyi ma waraahu wala dafa njëkkee sax ne wa fil muharrami xadaa xawfu rachid xalifatan an al muhaymin al majid mu ne cheikhu tijaani ci weeru muharram su demmatee jot qurbaaniyatul uzma mu doog cee teg wa baada shahrin wa layaalin gannaaw weer ak ay fan mu tombeek fukk fan ak juróom-ñett guddi googu ci weeru safar ci la jotee nag maqaamu ketmiye xatmiye walu yàlla yi xamoon nañ ko doon ko ñaan doon ko fuglu ba am ñu ko ooteel seen bopp waaye ketmiye nag moom kenn xamu ko loolu yàlla daf ko nëbbu moo tax ibnu baaba di la wax ne wa baada shahrin wa layaalin ibtaqa إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الورى سوى النبي ما وراه وراه mooy maqaama bi nga xam ne yàlla nëbb na ko mbooleem bi ndeef yi ku dul yonent bi sallallahu xamut maqaama boobu noonu lu lay wanal maka maqaama boobu kawe gum kawe xatmee rek bu ci yonent bi ba ci Cheikh ah, dafa toog gisul lu ndeyjooram càmmooñam kanamam ginnaawam kaw ak suuf lépp gisul lu ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo di ko laaj ne ko yaa rasulallah al awliyaau ayuhumu ala maqaaman yow sang bi sallallahu alayhi wa sallam yoon eh, wàllu yàlla yi ñan ñoo ci ëpp maqaama mu ne ko sayidi abdul qadir jeylaani ibn arabi ñaar ñi ñoo ëpp maqaama ci wali mu daal di ko laajaat na ko awasala huna ahadun min al awliyaa ndax kenn ci wali yi mas na ak fi mu agsi mu ne ko naam wasala huna sayd abdul qadir al jeylaani wa ibn arabi al xaatimi amma imaamu dusayri wal xasan al basri wal imaamu al junaydi faqad balagu ila ushri al maqaami fa galabahum al tajalli lam yamdu farjahu mu ne ko maqaama bi seydi seydi arabi ibnu seydi eh, abdulqadir jeylaani ak ibnu arabi lxaatimi ñoom agsi nañ ci maqaama bi amma imaamul busayri ak xasan al basri ak imaamul junayd agsi nañ ci fukkeelu maqaama bi ngelawul tajalli ëpp mu ñoo dem ñu di dem amma imaam eh, ibnu arabi lxaatimi ak Euh, Seydi Abdul Qadir Jeylaani dañoo àgg ci digg maqaama bi rek waaye Cheikh Ahmad Tijaani maqaama boobu daf ko raafal lépp moo tax mu nekk borom xatmiya ci xaqiqa ci lu wér ci lu dëggu waaye kitmiyaam gi nag loolu yàlla moo ko nëbbu kenn xamu ko moo tax doon na dund ne inna lana martabatan inda allahi tanahat fi lulwi ila haddin yaxramu dikruhu wa laysa hiya allati bayyantuha lakum bal hiya min waraiha mu ne yàlla may na ma martaba boo xam ne am naa martaba boo xam ne kawe na ci yàlla kaw waay boo xam ne àgg na ci dayo boo xam ne dafay xaraam sax ñu tudd ko te duwut sax li nga xam ne moom ngeen gis waaye mi ngi ci ginnaaw loolu waaye martaba bu su ma ko wanee woon ñi nga xam ne ñooy euh, nitu yàlla yi yi nga xam ne àgg nañ ci yàlla daneen ifta sax pour rey ma waxuma laak fuqaha yi nga xamante ne ñoom xamuñ ci xaqiqa dara waaw kon loolu mooy différence xatmiya ak katmiya katmiya Cheikh Tidiane bi nag loolu moom kenn mënu koo xam yàlla ump na ko umpal na ko mboolem yonent yeeg malaaka yi ku ñu yonent moom xam la wëli yu xamoon ko doon ko sàpp waxtu wu nekk waaye nag yàlla Cheikh Tidiane la ko jagleel ci weer muharram ci la nekk xutbul maktum xutbul maxtum bil xaa waaye ci safar ci la nekk xutbul maktum bil kaaf ñu nag bu maqaama boobu noonu ba nga xam ne kenn xam ko macha allah gis nañ ñu koy amal fii at bu jot fii si Medina Baye taarix bi lan taarixu màggal guddi laytu yi fii si Medina Baye waaw euh, fii si Medina Baye ñi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Hassan Deme Cheikh Mouhamadul Kabir ak ay rakam cheikh Mouhamadul Habib cheikh Abdul Baqi sëriñ Aliou dem ba ci suuf ak suñ mag ñu ñëpp Seyda Fa dem ñoo dajaloo pour continuer sunna si nga xam ne suñ waajur suñ sëriñ Cheikh Hassan dem moo ko sunnaal fii ci réew mi muy Magal Leylatul Katmiya loolu mu ngi amee ci mille neuf cent quatre-vingt quatre-vingt wala euh, mille neuf cent quatre-vingt-deux ci def ko coono njëkk a def fii ci gàmmu tukulóor lu waraloon loolu tukulóor yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci Kawlax dañoo bëri woon ay uute bëri woon ay naanuwaay Cerno nag yàlla may ko ci xam-xamam ak ci maqaamaam yàlla may ko mu dajale tukulóor yépp ci benn buum ci li leen doon waxtaanal Cheikh Tidiane benn ngoon ba wax leen leen am na guddi goo xam ne de Cheikh Tidiane wax na ne buñ xamoon lu nekk ci guddi googu ci ay may te nañ ko jàpp at mu jot di ko feete di ci euh, waxtaan lu baax di ci def lu baax muy Laylatul Qadr loolu nag ci la leen ko dund ñoom ñëpp ñu kontaan ci loolu ànd ak moom pour taxawal ko mu ci daan def alalam di ci def coonoom di ci def lu nekk loolu cent 1982 la ba 1989 muy génn àddina mosu ko ñàkk def foofu ci làmb tukulóor gannaaw gi nag boobu ba léegi tukulóor yi moom ñu koy def waaye ci commencement 2000 yi ci la njaboot gi dajaloo ne comme que Cerno moo nekkoon masdaru mbir mi jot na tamit ñu continuer su naam soosu fii ci biir dëkk bi ndax tamit bàyyi dëgg dégg mooy xalifa Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu taala anhu bu ñuy def léeg-léeg kattanee di ko fii ci Medina ci bundu kër Cheikh Hassan Deme dégg dëgg-dëgg lu dëppoo la lu neex a dégg la tamit te sax wax nañ ne ci masaadir yu dëgër lu wér eh, ne Cerno ci mujj dundam waxoon na ne katmiya gi dana toxu ñëw ci buntu këram fii nii kon nubuwaat boobu noonu yàlla dëggal na ko ci ay njaboot yoo xam ne njaboot yu nawloo seen bàyyi leen ci jaar ci ay tànkam ak bëgg ko gërëmloo ak sàkk ndermaaneem moo tax ñu di ko taxawal dégg nga ba alhamdulilah tey katmiya nekk na loo xam ne tasaaroo na fii ci réew mi ba ci bitim réew nit ñaa koy màggal ñaa ngi ci dajaloo di waxtaanee ngëneeli Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani ak ngëneeli góor yi nga xam ne ñoo nekk ci biir tariqa bi nekk ay xutbu waaye ak ngëneelu tariqa bi nga xamante ne nii benn tariqa mënu ko féetee kaw muy suñu tariqa bu màgg bi lépp dégg nga ci euh, gis-gisu góor bu màgg boobu ak euh, xam-xamam bu màgg ak mbëggeelam ci Cheikh Tijaani moo balal liggéey macha allah euh, gannaaw bu nga li ko waral ba lan mooy li nga xam ne mooy perspective maanaam nga xam ne moom ngeen programme waaw ren luñ programme ak mooy nañ daan defee programme bi rek lu dul ne ñun at mu jot dañuy xër jotaay bi lépp luñ fi sotti ci xam-xam mu nekk loo xam lu yokk la ndax amuñ benn sikki sànk ne ethnie gi dañ ko dalee def ba léegi ku ci mas a teew rek yooyu da nga dolleeku ci xam-xam da nga ci yëg-yëg da ci bëgg yàlla ak ci bëgg yonent ak ci bëgg Cheikh Tidiane te loolu rek moom muy njëriñu daje yu mel nii du daje rek pour jox xaa joxe xaalis wala pour lekk naa déedéet waaye xam-xam bu rafet bi nga xam ne ay borom xam-xam bu kawe deneen fi teew dégg nga daal di ko tuuru fii ren nag danañ wax ci lu bëri danañ wax ci ñenn ci góoru tariqa bi ku ci mel ni Seydi Ali Xaadim ak Seydi Mouhammad Arabi ak Dëmraawi te leen ko waxtaane leen waxtaane maam alxaaji Abdullahi Niass mi nga xamante ne ni tey moo ñu indil Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala an mi nga xam ne moo ñu bëggloo Cheikh Ahmad Tijaani te leen ko waxtaane ci guddi gi te ñuy waxtaane euh, yooyu ay góor yu màgg lañu lool naka noonu Cheikh Mouhamadul Amin nam daan teewee guddi gi dana ci teew tëbb nit ñi waxtaanal leen ci Cheikh Tijaani waxtaanal leen ci xatmiya waxtaanal leen ci ketmiya xool nit ñi nit ñi xool ko yërmaande yàlla wàcci barke yonent bi wàcci barke Cheikh Ahmad Tidiane wàcci barke Cheikh Ibrahima Niass tamit daal di wàcci guddi la goo xam ne daal moom ay mbiru boppam la amee yow organiser rek moom nga mën ak yaakaar waaye li ci wàcc nag moom yàlla rek moom moo xam nim day ci ay barke ci ay xewal te nekk na pala place boo xam ne mu jarab la ci nangu ñaan ñu fi mës teew lépp waxtu boo xamante ne ni ñi ngi ñaan ñëpp tàllal ñi yéene seen soxla yàlla dina def tawfiq mu am waaye ñu bëri tamit ñëw neen fii nii si garanti leen ay maqaama ci seen wàllu àddina yàlla def loolu am dañ teg ci suñu bët ñun ñëpp defe naa ku yàgga teewe tet mii di histoire yi nga xam ne xew na fi jamono bi seen maam di nekk dégg nga ak euh, leneen ak lu ne xew na fi dëgg dëgg tet la boo xam ne daal moom mbiru yàlla la te yàlla moom kul yoomin woo fii sha'nin waxtu bu nekk rek mu ngi dotti ay mayam mu ngi maye doon doolal te bàyyi mu ñu jàngal ne taalibe xaalam toujours rek ci lu mu war a nekk mooy hal min mazid te yàlla moom waxtu woon nañ ngi naan wala day naa mazid kon ñun buñ tante tante bu mel nii defuñ ko lu dut taataan ak sàkku tëbbu ci buntu Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu di wax hal min mazid moom mi nga xam ne ma min waliyyin illa wa yashrabu min bahiyi amul benn wëllu yàlla lu dul ne ci géeju Cheikh Tidiane ngay naane moo xam xam na wala xamut kon buñ ko tantalee tant bu mel nii suñu xaar ak suñ lépp mi ngi wax hal min mazid te xam nañ ne moom maqaamaam ak géejam googu nga xam ne mi ngi sànni ay faydu waxtu wu nekk di ko jaarale Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi wax naan wala day naa mazid عليك صلاة الله ثم السلام فبرأ